professeur Ka ñu ngi lay nuyu. Euh, Fatou maa ngi lay maa ngi lay dellu ziar. Mhm. di leen nuyu bu baax a baax. jërëjëf kaa ñu amaan mbégte lool ànd ak yow ci waxtaan wi euh, yow yaa jiite section sénégalaise bu Tabital Pulaku nekk itam vice président bu section internationale euh, mbirum Mali yitteel leen lool ngeen yàgg cee dox yéen ak yeneen yi ONG tey professeur Mali googa yëf yi euh, daal di am tànki kanam ndax coup d'état ba ñu weesu beneen coup d'état dafa am ci biiram ba tax Assimi Goïta colonel nekk njiitu réew ma tey jii sax askan ndax yaa ngi doon xaar situation bu ni mel. Ah, xam nga affaire Mali. Ah, du moom rek moo yitteel sax. après Afrique bi yëpp ak Sahel bi moo yitteel. parce que problème bu mag la. Mhm. pour ñun ñëpp ñun sénégalais yi ñun africains yi. Mhm. su loolu weesoo ah, man li xew Mali dama ko dama koy naxarlu ba léegi. Mhm. ci suñu wàllu ñun parce que dara leeru ci su doon su doon bëree Eh, dañuy wax ne sotte dara sotteegul ba léegi. ndax gis na ni mu nemee ni mu demee coup d'état ci biir coup d'état. Mm-hmm. am na malien yu d'accord ne war nañ toogal nguur nag ndax ñu seet nag lañu ñu saafara problème yi ñu am ci réew mi. Mm-hmm. am ñeneen ñuy wax ne waruñu woon fexe ba teqalikoog France euh, mu ñu créer ay problème ndax réew yi ñuy wër yëpp nekk G5 Sahel. Mm-hmm. ay Tchad ay Mauritanie ak Burkina Faso Niger ñoom ñëpp ñoom ñu ngi des di ànd ak France mhm. euh, kon su Mali rek beroo euh, xëy na mën nañu am jàmm après mais dina xaw a doy waar tuuti surtout ci euh, mbirum ñu doon dimbalee takk der yi mooy force de défense et de sécurité mhm. pour ñu aar réew mi wala ñu aar ci boog li ñu mun a aar mhm. ndax armée malienne ñu nekk ni aarul sax vingt pour cent euh, Mali. Hmm. Euh, donc kooku problème bu bu bu bu bu bu ñu naqaru la. Hmm. Euh, beneen bi yëg ngeen ni par exemple France. Euh, dafa leen xaw a mere. <laughs> xëy na mere def <laughs> dafa bari doole tuuti waaye nag gis nga ñu ngi yónnee seen ministre affaires étrangères euh, Drian. Mm. mu le Drian mu dem Burkina Faso di leen ndokkeel di leen màcc coono extra mm. yooyu yëpp ay politique la. Mm. mooy rek daf leen euh, daf leen ndànk ndax ñun réew ñi leen wër yëpp ñu ngi continuer ànd ak ñoom. Mm-hmm. ci biir G5 Sahel ci biir lii biir lële donc da ngeen waroon seet li ngeen di def. léegi ñu ngi ñu ngi Euh, jublu ci tey ñoo ñu installé kii prêté ñu def prestation serment Assimi euh, mm-hmm. waaye est-ce que malien yëpp ñoo ko topp ci loolu loolu wóorul li wér te wóor mooy loolu yëpp mu ngi amee ci boppu réew mi waaye euh, quatre-vingt pour cent réew mi ñoom mu ngi mel ni jote wuñ sax ak ak ak nguur gi parce que ñu ngi nii ci biir réew mi foofu ci Mali. Mm. kii daal ba ci biir Masina ay Mob Teek plateau Dogonk euh, village yooyu nekk foofu ay ñoono toute la zone la ba Ségou. Mm. ñoom ñëpp ñoo ngi ci euh, njaxare ak tiis di nga xam ne li ko indi mooy li ñu tudd les les les groupes les acteurs armés. Mm. acteurs yooyu dañu bari xeet bari ay pexe. bari doxalin am na ay groupe insurrectionnel armé yi nga xam ne ñoom moom seen bopp am na ay li ñu tudd jihadiste kenn xawul lan mooy jihadiste am na ñuy tudd terroriste kan mooy terroriste am na ay ministre d'autodéfense yi nga xam ne nguur gi moo leen moo leen jàppale mooy daan am avancé gu jàppale noonu en deux mille dix huit demoon ba IBK dissoudre leen après Ogasagu mais ba tey ñuy continuer wéy di def seen seen seen liggéey pël yi ak sàmmkat yeneen ñi am nañu ay milice interne ay groupe villageois loolu yëpp dafay wane ne lii mu ngi mel ne lii soxar nguuru Mali muy ut benn gouvernement kooku jotagul soxal ñi nekk ci biir biir réew mi. Hmm. est-ce que situation bi nga wax bu continuer professeur euh, Mali euh, du ñu dem ba yenn gox yi rëcc leen li ëpp ci dëkk bi day d'ailleurs ndax fi mu ne Bamako rek la la nguur gi yem. te Bamako googu sax ni nga ko waxee maîtriser wuñ ko. même Bamako contré wuñ contrôlé wuñ ko. Hmm. même Bamako. ce qui fait que euh, ñu ngi xaar ñu ñu ñu ñu rafet njort nag. Hmm. ñu ngi rafet njort ni xëy na. su ñu installé tey kii ah, Assimi Goïta danañ am gouvernement buy geesu nag askanu Mali parce que loolu li indi problème yëpp ci biir réew yooyu mooy absence de l'État mooy nguur moo amatul mu ngi mel ni euh, euh, boîte de vitesse bi nga xam ne moteur bi mm-hmm. ak roue yi jàppante wuñu léegi mm-hmm. moteur bi de toog ba dafa ba mu ko di tourner rek ci boppam ralenti mais entraîne su doon oto ah, ça n'entraîne pas entraîné wul. Mhm. population bi àndul ak population bi. population bi ñu ngi ñu ngi jéem a góorgóorlu léegi ce sont les les groupes armés leen qualifier. même ñoom ñooy doxal nguur foofu. Mhm. su ma la joxee benn benn benn benn misaal rek. gis nga ki ñu ñu tudd gars yi ànd ak Amadou Koufa. Mhm. te ñu tudd leen Katiba Marsena. ñoom dañu installé espèce mini nguur la bi nga xam ne. dañuy teg seen lempo mooy zakat boobu. Mhm. teg leneen ay cotisation mhm. boo ko réglé ay yoonu sàmmkat yi ak béykat yi. fu ne am na seen nguuru bopp. am seen am nguur ci biir nguur. nguur nguur kooku mënul yore réew. Mhm. soo demee kii daal xam nga amoon na fi jamono. mais dañuy tere sax armée Mali tak waa takk der armée ñun leen bu leen dem foofu. xam nga kooku kay soo ko gisee ci réew. mu ngi mel ne léer boobu mu ngi ci tànki tas. le le mot n'est pas trop. Mhm. alors léegi loolu ñu ragal ñun. te loolu du baax ci Mali. Mhm. du baax ci gox gi yëpp du baax ci Sahel. Mhm. parce que Burkina itam rëccul Niger rëccul Tchad moom waxi noppi. léegi nag France mi mere lool euh, militaires yi moom jël na dogalu jógee euh, ca ca ca Mali loolu ban njeexital la mun a am si Mali mais aussi ci yeneen réew yi maanaam Sahel bi. waaw xam nga France. Euh, réew mu nekk rek intérêt am lay doxal. Mhm. du ma calculer lan mooy intérêt France foofu même su ma ko su ma ci amee xalaat ma ko mhm. wax. Mhm. waaye liberté wóor mooy France dina leen teqale ak yeneen réew yi parce que France mu ngi des mu ngi wéy di di liggéey ak Tchad. ci biir budget G5 dina wéy di liggéey ak Burkina Faso. mu ngi ni wax naa la léegi euh, Le Drian dem na foofu dina wéy di liggéey ak Niger dina wéy di liggéey ak Mauritanie. su ko defee su Mali desee ci digg bi moom ñii di wax ne waaye Mali dina dina wëlbatiku. Mm. uuti euh, partenaire bu jëkkoon tam di Keïta muy muy Union soviétique. Mm. mais kooku itam c' est pas évident. Mm. c' est pas évident parce que euh, am na facteur yu bëri yi nga xam ne. ah doo doo doo du ay pion léegi bàyyi naa kii rek jàpp naa kii. affaire bi d'ailleurs am na ñu gis loxo russe yi sax ci coup d'état bi mujjee am. ah <laughs> kooku de yéen a ko wax man xamal moo ko noonu. mais na xam nga rek. Mm-hmm. affaire bi dafa jaxasoo. Mm-hmm. mais Mali dina ah génnagul ci gutu daal. parce que ah, takk der yi suñu amul ndimbal. Mm-hmm. armée malienne waa takk der Mali amuy doole. amuy kattan bëgg nañ bëgg nañ ndegam liggéey. Euh, défendre euh, cité euh, réew mi mais munuñ ko. mosuñ mm. ko mun depuis 2012 munuñ ko amuñ arme bi amuñ doole bi amuñ entraînement bi amuñ mm. renseignement bi. Mm. est-ce que léegi France moo leen doon woon ay position ay seen drone yi. leen dimbale ci yenn information di leen yu bari ay information surveillance du territoire ak kooku suñ ko bloqué même fi mu nekk nii gars ya les acteurs les insurrectionnels. armée la hmm. ñoom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi kontaan parce que ñu ngi commencé renforcer seen position demain même suñu toogee ay diir nguur gi ñëwaat bëgg a liggéey te te te te te bëggul waxtaan ak ñi ñu tuddee terroriste ak jihadiste hmm. daañu am problème parce que dana fekk ñooñu am sympathie population bi parce que am na ay nit yi nga xam ne population bi dañu nekk entre le marteau et l'enclume hmm. amuñ ñi muy yore ngandaay parce que soo yoree ngandaay ñu ne ah tey jihadiste ñu fetal la rey la mhm. faat la soo yorewul ngandaay il faut nga wéeru ci ñi nga xam ne mën nañ la aar effectivement ñi dem ci terroristes yi ñi dem ci jihadistes yi ñi dem ci euh, yeneen organisme ya am na sax ay bandi ci biir Mali yi mhm. nga xam ne dañu sàcc nag mhm. sàcc wurus tas kër yi jël def lu leen neex ak drogue yëpp mu ngi foofu donc nguuru Mali dafa war a def attention ci li muy def. loolu mhm. lu gënoon moo ñu amoon nguur civil. Mhm. ñu gaawantu ut def ay élections. Mhm. et ñu seet ay mécanismes endogènes ñi nga xam ne ci ñun ñun neen la. ñu waxtaan suñu biir ci communauté yi. te ñu bay jël di ethniciser les problèmes de terrorisme. loola am Burkina Faso nga ne. moo moo moo dal Mali itam. mais Mali Mali du moo moo du jàppale donso moo jàppale moo jàppale woon euh, Dana Masegu Burkina def na lu ni mel lan la jëriñ gis nga li xew Burkina moo defoon Kouarigele Ouagadougou ñooñu ay moosi lañ. Mm-hmm. te population su ñëwee ne kii xeetam lay faral. Mm-hmm. mais ñoom na duñu armé wu du baax. ba pare nag def euh, les les les BDP là les volontaires de la défense de la patrie armée bi buggul leen ñu ne ñu ne amuñu entraînement amuñu euh, mënuñu nekk ay soldats daal te ñu ngi nekk diggante soldats ak population bi. Mm-hmm. population bi. képp ku ci am sa xeet foofu nga nekk muusi wala nga nekk gourmandement nga jàpp ci nii ak na mm-hmm. ñeneen ñi sàmmkat yi comme pël yeeg tuareg yi les les les les les les les ñoom ñu ne non non euh, ñoom soxluñu leen ak kooku day indi jigi jaax ci biir réew mm-hmm. li ñu waroon def kay xam kañ lay am mais il faut ñu am ay takk der yu dëgër yi nga xam ne ils à égale distance des population mm-hmm. yi xam ne ñoom aar réew mi moo leen soxal ñu jox leen doole renforcer seen capacité d' intervention seen capacité de service du territoire seen capacité information extra extra. Mhm. tant que defuñu loolu ñu dindi les groupes armés soutenus ou pas par l' Ah, du duñu gaaw a génn ci crise boobu. du sotti professeur waxtu bi moo ñu tàmbalee dab ñu jeexal très rapidement ak Mali dellusiwaat ci sanctions yi ginnaaw France maa ngi koy wax sànq euh, Union africaine CEDEAO ñoom ñëpp yëkkati nañu ay daan euh, mais nekkul ay daan économique maanaam du laal askan wi jàpp nga ne loola lañ waroon def dëgg-dëgg euh, ci situation bi taxaw. waaw man dama jàpp ne depuis même le premier coup d'état la xam nga CEDEAO dafa bëggoon def ay sanctions économiques. embargo jàpp naa ne jaru ko. Hmm. parce que problème bu du c'est en en suñu sanctionné Mali. ñu réew mi hmm. du soldat ci la ñu sanctionné du nguur gi la ñu sanctionné hmm. population Mali la ñu sanctionné kon ko amul amul amul amul sens sanction économique amul sens foofu te CEDEAO bi ngay wax ni ak Union africaine ñoo ñoom ñoo gën ñàkk liggéey ci jéema ut jàmm ci biir Sahel fukki at a nii presque wala juróom-ñetti fukki at a nii Sahel di nekk ci njaxare ñoom kenn déggu leen kenn gisu leen day fa bay ay tubaab. Hmm. bay fa ay MINUSMA bay fa ay G5 Sahel amuñ benn njëriñ daal te sama gis-gis amuñ benn njëriñ te kooku du am noonu du loolu moo tax ñu Union africaine du loolu moo tax ñu sos CEDEAO donc Mali ak Burkina génn guñ ci. guuta ci problème parce que li am Solan keroog. Mhm. mais loolu wane la jamono nañ bu jàpp ne léegi la jàmm dina am mais wane jaaj di seeg ñooñu ñu tudde terroriste mhm. wane leen ñun ñoo ngi fii mhm. da ngeen jàpp ne mun ngeen ñun mëneen ñun dara parce que nekkul leen sur le terrain l' état n' est pas sur le terrain même au Burkina l' état la yem et encore loolu mooy problème bi. Mhm. te te pexe yi ñoo baax yoon yi ñoo baax parce que suñu population androgène. lu tax duñ sukkandiku suñu kilifa yi nekk foofu suñu kilifa diine kilifa aada yi fa nekkoon li Afrique doon régler seen problème depuis depuis depuis depuis tey lu tax duñ duñ duñ dellu ci population bi. Mhm. ci jigéen yi jeunes yi. Mhm. waxtaan ak ñoom. dara ñoom daal seen waxtaan yëpp ñun tubaab yi tubaab yi ñun ñun CEDEAO CEDEAO ñun. kooku du fa dara. Mhm. man man mooy suma xalaat. jërëjëf professeur il faut ñu changer. Mhm. vraiment mais ñu ngi ñaan yàlla yàlla dimbali ñu dimbali Afrique. amin amin professeur Fary Silate ñu ngi lay gërëm bu baax jéggalu nag ci teel bi laa yëkkati ndax euh, xat na te itam. Mhm. liggéey ca université mi ngi lay xaar jërëjëf Ka ñu ngi lay gërëm bu baax a baax.